jërë ngeen jëf di rafetlu ànd beeg Equivox TV ginnaaw bi ñu leen a nuyoo dal nag ak jàmm ci seeni xibaar ñu dooree ko rek ak wopp ba coronavirus moom nag mi ngi wéyal yoonam rek fii ci Sénégal léegi ni tey nag ca arjuma ji ci 2277 euh, tests yi ñu jot a réalisé ñoo ci jot a positif ci 300 euh, yooyu am na ci 126 cas contact 174 cas communautaire 173 guéri 43 cas grave ak 9 décès. tarixa murit bi yeewoo aw ti sa ginnaaw kii di Serigne atu jaañ rek euh, làqoo kii di Serigne Atou Diagne nag mu ngi jiite woon rek euh, daayira is bu tarixa ci euh, àjjuma bi nag la daal di faatu rek ginnaaw fanweeru at a ngi nii nag xalif bu fi toog rek kii di Serigne atu jaañ rek daal dina la kotuwaaye ñuy ñaan rek yàlla xaare ko àjjana yërëm ko rek tey jéggal ko ay addu rek dem nag ci euh, disparition jaari Sow moom nag nekk ni démb rek kii di jaari saw bind na ab lettre kii di le ministre Serigne Mbaye Thiam di tuteuram ci noonu nag li jaari Sow xamle ci lettre boobu rek mooy mi ngi bind lettre bi librement maanaam rek kenn xoqatalu ko ngir rek mu bind boobu boobule lettre ci noonu nag daal dina xamlewaat rek ne bi muy dem bàyyi na ay euh, indice yu bëri rek ngir mu xam ne ngir xamle ne demam boobu rek c'est volontaire jaari daal dina xamle waat ne rek moom euh, nëbbatuwul dawul benn yoon dafa dem rek ngir rek am benn pause ci dundam maanaam ab repos ci noonu kii di Serigne Mbaye Thiam nag mi ngi jaajëfal Sénégal yi ñoom ñi nga xamoon ne rek jàppoon nañu ci bii combat ngir rek kii di jaari euh, Sow daal di feeñ ba tey rek ñuy àddu ci mbiruma jaari Sow kii di Thierno Bocoum di leader di mouvement politique alliance générationnelle pour les intérêts de la république daal di na ci àddu ginnaaw rek bi mu defee ab benn post ci Facebook am xam ne rek ne regretté wu ñu benn yoon wër bi nga xam ne ñu ngi ko doon wër rek kii di jaari Sow ci noonu tamit mu daal di mu daal di ko xamal ne suñu doom nga suñu doom ngay mës doon tu es un être humain maanaam nit nga te nit rek nga mën a doon loolu la kii di Thierno Bocoum xamal Diary Sow te di ko conseillé rek. mu gën a fort yokk dooleem rek te fam nekk rekk ñu ngi ko fay ñaanal. ñu jël woto rekk dem ba Ngeekoox foofu nag ab tàkk-tàkk bu doy waar moo fa am li waral bi lay jëyee nag moo di ab ndaw buy wuyoo ci eh, maam jaara moo doon togg ataaya ci noonu nag bi mu boyalee ci la ngelaw li ñëw rek dal di yóbbu eh, safara si ba ci biir àll bi lu toll ci 6 hectares daal di lakk ak 15 cocotiers yoo xam ne rek lépp rek poudre la mujjee ci noonu nag. ci la brigade des eaux et forêts daal di ñëw rek fay tàkk-tàkk boobu. ñu dem rek fële ca Ouest Foire ku tudd Babacar Tall doon gérer rek benn kees Orange ne la Samba Boye daal di jekku rek yóbbu ci moom lu tolloog 6 millions ñii di Samba yi nag dañoo rek neenu ki nga xam ne moo di Babacar ndax te xam nañ rek yoon bu muy jaar buy xëy si rek ak buy ñibbi ci noonu bi mu rombee rek lañ daal di këf sac ba nga xam ne rek mu ko yoroon fii mu toll nii nag Samba Boye yooyu kenn tegagu leen loxo kii di Babacar Tall daal dina déposer rek fële section des recherches de la gendarmerie bu Colobane ab plainte ñu dem fële rek ca Touba quartier Daaru Marnaan foofu nag ab jee moo fa am ab benn ndaw rek moo daal di jàmm kii di jarbaatam boo xam ne rek mi ngi am 4 ans ci noonu rek la ko dugal ci biir ron lal bi ngir rek nëbbu ko xale bi nag bi muy faatu rek kii di tantam da koo jàmm ñaari jàmm fi mu toll nii nag bi ñu interpellé ki nga xam ne rek moo def boobu boobule jee dañoo jàpp ne rek xale bu jigéen bi dafa am trouble maanaam rek bopp bi dafa xaw a dese ba fi ñuy wax ak yéen nii nag victime bi mi nga fële rek ci hôpital hôpital Matlaboul Fawzani voilà mbokki téléspectateurs yi ñu doon seetaan à travers Equivox TV ñu ngi leen di jaajëfal rek te di leen di jox dig daje lundi incha allah.